di alaaj ibrahima ñas radiallahu taala anhu waaye tamit ñoo ngi baral nuyoo ak i cant ak i gërmande suñu sëriñ bàyyi cheikh mahamad insa la di koy ñaanal yàlla gën koo taxawu may ko wér may ko gudd fan sàmm ko moom ak booloom ak jabootam si àddina ak si àllaaxira bu loolu wéyee waaw tey ñu ngi leen indil tënku dundu yonent yàlla Souleymane bun Daawuda Souleymane bun Daawuda ji nga xam ne yàlla mayan na ko àddina te amul benn frontière de moo ginnaaw moo ñaanoon loolu moo ne woon yow sama borom jéggal ma te nga may mu góor joo xam ne soo ko may kenn te dootoo ko may te kenn sama ginnaaw yàlla may ko góor gu rëy googu nit yeeg jinne yi ak siyaati nii lépp dañoo nekkoon waaw waa si suufam mu leen di mu leen di jilif de ba si jànnaaw yi suñu kàddoo waaw Souleymane bun Daawuda waaw da ko doon dégg de ba si ngelaw gi su bëggoon tukki gelaw gi moo koy këf waa yóbbu ko dëkk ju ma bëgg a dem rek si doxul li nga xam ne tolloo nag waaw weer de waaw mu ngi noonu kon yàlla mayoon na ko góor joo xam ne kenn mënul xayma wax na ne moom moom yonent ci yàlla Souleymane lépp lu buur di wut si guuram mu ne yàlla jox na ma ko si bànneex de ba may jël guur gi fukki at ak ñett la yore waa la amoon waa def na si guuram ñeent fukki at waa ba mu amee juróom fukki at ak ñett si la wuyu boromam moom Souleymane bun Daawuda waaw Souleymane bun Daawuda mi ngi noonu waaw moom yàlla mayoon na ko xikma mayoon na ko xam-xam moom ak baayam Daawuda waaw mu nekkoon koo xam ne wax nañ leen ne yàgg nay àtte de moom dafa moom la yàllam joxoon tribunal dëkk ba affaire ba am rek moom moo koy plaider waaw nit ñi kenn ñemewu ko jinne yi kenn ñemewu ko seytaane ni kenn ñemewu ko de mu amoon góor gu màgg yàlla nag dañul di may loolu tamit ay doomu aadama ndax àddina gi yàlla dénk na ko ay buur ñaar ñu jullit lañu ñaar ñi yéeféer lañu ñeenti buur yooyu ñoom ñoo mës a doxal àddina ñaari buur jullit yi mooy kan mooy Souleymane bun Daawda buñ leen di jàngal nii waaw axzul xarnaay ni waaw ñu gënee ko xam si Iskandariya ñaari buur yéeféer yi mooy Namrud ibn Kanaan waaw ak Bukta Nasar waaye boroom xam-xam yi nee nañu juróomeen buur ji nga xam ne moo war a yilif àddina gi te du am frontière kooku mooy Insa Ruuhul saa su ñëwee si kanam de bi nga xamee ne loolu xew na nag Souleymane bun Daawuda mus nay ànd ak ay soldaaram yi nga xam ne ay nit lañu ay jinne lañu waaw ak shayatin waaw si gawar boo xam ne bu bu bu rëy la waaw picc yi tamit daal di sàppe waaw tolloog bopp ji waaw daal di langsaloo noonu nee na bi ñu yeggee ba si ci kuru xoronan yi buuru xoronan ngi di dàq ay ay bokkam di leen naan gaaw leen dugg seen néeg yi balaa Souleymane ak soldaar mi di leen nappaaje Souleymane ba mu ko déggee waa mu sant boromam bi nga xam ne moo ko déggloo làkk yooyu de waa te loolu jafe na moo tax arif waa di nga dem waa ci say séeru waa yàlla di lay dimbale ba picc su kàddoo wala nga dégg mala bu kàddu di nga xam ban yàlla yi si kër waaye nga xam nag seen làkk yi seen loxo ba ñuy wax waaw loolu yonent rek a si am doole de Suleymaan nag yàlla mayoon na ko loolu waaw bun daawda alayhi salaatu wasalaam mu ñëw ba si xoro nag ba nag yow kan moo la wax ne man buur buy tooñ laa bëggee diggal lii say bokk yi de moo ne ko déedéet soo gisee ma diggal leen loolu jublu ma si loolu ndax nga romb leen da damma seen mbagg yaag say soldaar yi man yitteelu ma de waaye damaa bañoon ñu gis la rek gis lu la yàlla may si nguur waa loolu daal di def ki ñaan seen biir xol waa ba dox seen diggante ak seen borom ba lu ñu war a wéetal yàlla dañ ko mën a wéetal de waaw xoronam googu bokk na waaw si fukki mala yi war a dugg àjjana de Suleymaan bun Daawuda tamit amoon na benn picc ba ñuy wax Moussa Jubóoli suñ daan ndox si àllum Kerte Ndeng foo xam ne ndox amu fa Moussa Djiboly moom mooy dem waa yàlla may na ko mu dem ba xam si xam-xam fan ban suuf moo am ndox de moo la ñu koy tuddee Moussa Djiboly bés nag Souleymane du koy wër waa pour mu indil pour mu feeñal ko ndox ndax bëggoon na jàpp waa jaamu boromam mu wër Moussa Djiboly gisu ko mu ne Moussa Djiboly tey tàddal na ma sama jaamu yàlla indil leen ma ko tey su ma ko jàppee dinaa ko mugal bàyyi ñas radiyallahu taala anhu wax na ne waa si tafsiram yi waa nee na suleymaan bun daawda su doon magal janaawi waa alayhi salaatu wasalaam lu muy def mu ne dafay sukki seen karaw yi seen karaw yi bopp yi waa timbali leen jant bi muy leen di lakk de waa loolu leen def de nee bu jànnaaw yi dawee nag waa di seet seen bokk ba ñu seen Moussa ju boole di ñëw ñu bugg ñu bugg ko song mu ne leen lëntul naa leen si ki nga xam ne waa mooy seen borom bu leen ma def dara bàyyi leen ba mu yegg si Souleymane de ñu ne ko Souleymane mer na nee na su la jàppee dina la mëgal waaw wala mu rendi la de waaw bu mu yegsee ba si palew Souleymane waaw mu ngi toraxlul Souleymane de toraxal boppam daa di samp boppam si suuf waaw waddal ay laafam waaw sëggal geenam ne Souleymane waaw bul ma def dara te fekk ne solo ma la lum lay solo Souleymane ni ko foo nekkoon mu ne ko damaa demoon ba si côté Yemen waaw si benn réew bu ñuy wax sabey waaw réew boobu waaw xamoo benn jigéen moom mooy seen buur yàlla may na ko lu nekk waaw ay junne junne buur yëpp moom moo leen nodde waaw ne ko gis naa siis ju muy toog mooy arasam waaw gis naa ne aras bi guddee na si guddaay si longueur def na quatre-vingts mètres de waaw si largeur def na quarante mètres de waaw guddaayam hauteur am waa toll la nag lu trente mètres de waa te lépp ñoo ngi ko liggéey urus ak xaalis waaw ak ay ay ay jamaade waa du koy malal siis ba waaw wax ko tamit naka la pale gi mel de waa Souleymane bu ndaaw la ne ko ha waa léegi wan ma fan la dox bi nekk ma jàpp su ma jàppee waaw man ma jublu buur boobu daal di jël bind lettre am ginnaaw loolu daal di koy jox picc bi ne ko yóbbul ma ko sa balxiis googu balxiis nag moom borom xis la balxiis moom baayam waaw gis nga baayam benn buur la woon buur la joo xam ne kenn mësul gis buur bu baaxee noonu lewet baax lool si waa dëkkam waa jub lool benn bànneex rek la amoon mooy rëbbkat la woon saa bu xëyee rek dafay dugg si àll gi dem di rëbbi bés nag bu muy dem di bi mu seen ñaari ñaari jaan yuy xeex benn jaan bu ñuul bu am kàttan ak benn jaan bu weex bu tuuti waaye bu rafet dee waaye jaan bu ñuul gi si boppam moo bëggoon rey jaan bu weex ba si la wax gàddam bi ne ko na ko reyal jaan bu ñuul gi bu ma reyee jaan gu ñuul gi xeex bu jaan bu bu weex bi xeex ak gu ñuul gi loolu daf ko xamaloo ndax àttanu ko woon waa nee na mu ne soldaar gi na ko jël yóbbu ko ba si boora dex ba waaw mu teg ko si boora dex ba si wetu benn garab peexaay garab ga ak peexaay ndox ga jàpp jaan gi mu xemmali bu ma mële mële ba mën naa ne ba pare buur bi ne soldaar gi nag bàyyi jaan gi mu dem jaan gi daal di dem ñibbi bu buur gi dellu si waatee nag ba reer ba sangu ba daal di dugg si appartement bi tëju tëdd waa bu ma yeewoo ma gis benn xale bu góor boo xam ne kenn mësul gis xale bu góor bu rafetee noonu wan waa xale boo xam ne waa yàlla may na ko tardé mu ne xale googu loo def ba dugg fii waaw ndax fii sama pale bi kenn du fi dugg de waaw mu ne ko man maay jaan ji nga xam ne waaw moom nga xeetali woon waaw man du ma nit jinne laa de waaw mu ne sama baay buur la buuru jinne yi la de gis nga jaan gu ñuul googu nga gis waaw bëggoon ma rey sama benn soldaaru baay la de waa sama benn jaamu bàyyi la dafa bàyyi woon ba ma sore sama pale ba waa mu ñëw def ma noonu song ma waa pour rey ma faagagal ma mu ne waaye yaa ma dimbale léegi laaj ma lépp li nga soxla si urus lépp li nga soxla si xaalis laaj ma ko ma jox la ko léegi léegi ngir fay la si li ma defal noonu buur bi nag man soxlawu ma loolu ndax yàlla may na ma alal may na ma urus may na ma xaalis de mu ne ko su la neexee tamit mun naa jël xam-xamu médecine def ko sa biir bopp de metti metti lu mu ñaaw ñaaw waaw yow yàlla naa def si yow xam-xam boo xam ne di ko mën a faj de mu ne ko mën man soxlawuma loolu ndax yàlla boole na mag ay médecin yi nga xam ne ñoo ngi may dimbalee mu ne su la neexee tamit mun naa la booleek sama benn jigéen waa sama rakk la waaw ku rafet la waa ngeen sëy waa buur bi neex naa loolu mu ne waaye nag leen benn condition condition la waa laa lay wax nii xam naa ne sëy bi dina metti ndax yow nit ga te moom jinne la te xam naa ne seen ànd dina metti ndax sama jabar sama sama rakk bi su fekkee d'accord ga waa génn sëy yéen ñaar waa moom lépp lu mu def sa kanam bul ko wax lu tax da def lii waa bul ko laaj dara waa bàyyil noonu rek mu ne man d'accord naa su ma ko su soo su ma ko takkee waa dinaa ko indi waa dinaa ko muñal te du ma ko laaj dara de waa nee nañu jël ko waa ji jël ko waa jinne gi yóbbu ko ba seen euh, dëkk waa mu gis fa foofu ay alal yoo xam ne ay kër yoo xam ne lépp urus la xaalis ak jamaade waa mu ñu yóbbu ko waa ba si ba si pale ba waaw ñu teg ko si gàngunaay waa sërëm bi ñëw waa muy ku jigéen ki ku ñu ko war a may moom tamit toog si beneen gàngu naay gi de ñu célébrer mariage gi waaw indil leen waaw benn assiette boo xam ne waaw ndox moo fa am waaw benn bool boo xam ne ndox moo fi am boolu urus la de waaw ñu raxas seen loxo daal di lekk ñu def fa ay fan waaw bu ñu paree nee na buur bi daal di jëlaat jabaram waa delluwaat si palem ñëpp tegoon ne buur bi nit lay lay sëyal fekk ne jinne lay sëyal ñu dem ba si diggante gi waaw ba si biir waaye jigéen gi jur benn ëmb daal di ëmb ba mu wasi nii mu jur benn xale boo góor boo xam ne ëppee na yaayam waa si taar junne yoon waa kenn mësul gis xale bu góor bu rafetee noonu buur bi kontaan ba xale bu góor gi lu mu ko bëggee sax bëggeewu ko dara waa foo ko gis rek mu ngi téye xale bi bés nag am benn safara boo xam ne dugg na si pale gi nee na ñëpp ñu jéem a fay mën ñoo fay rek nee na jabar ji daal di laxas liir gi lu mu tooyee noonu liir bu tooy xeeb mu sànni ko safara si safara si daal di koy yóbbu de buur bi bëgg a wax ne wax jabar ji lu tax nga def loolu bés boobu xataraay na jooy na def na lu nekk dóor na boppam waaye ma xalaat ne rek su ko neen tax nga def lii waa seen sëy foofu lay yem te moom daa bëgg soxna mu bés xolam waa waxul dara bés nag waaw ku jigéen ki daal di ëmbaat ba mu ëmbee mu wasin xale ba jigéen joo xam ne mi ngi mel ni jant si taar waaw bës nag benn xaj dugg si pale ba nee na fa ku jigéen ki daal di jël waa liir gi rek daal di koy sànni xaj bi xaj bu gànk daal di yóbbu de mu bëgg a wax jabar gi lu tax nga def lii waaye ma xalaat xalaat rek ne su ko waxee waa seen sëy foofu lay mën a yem mu daal di koy mettit lu muy ñaari mettit yoo xam ne mi ngi ko denc si biir xolam buur bi nag dem ba benn jamono nag am benn buur boo xam ne da ko tëkk woon xeex de waa léegi bi amul woon benn lu mu waroon def lu mooy daal di tukki dem fekki ko waa xeex ak waa ñu waroon nag romb benn désert boo xam ne waa désert googu juróom-ñaari fan nga fay dox waaw buur bi yóbbu ay dund lu toll ak waa juróomi fan de benn ministre bi nga xam ne moo ko jege yóbbu tamit dund lu toll ak juróomi fan bu ñu demee ba si digg yoon nga waaw juróomi fan yi bu mu bu mu bu mu bu mu weesoo nee na buur gi lépp lu mu yore woon si lekk ak naan daal di jeex de ministre bi rek moo yore woon lekk naan de ministre bi di koy yebal lekk ak naan si ay baam de mu tolloog mu mu indil ko waa def ko si ay saak yoo xam ne farine la ak ndox de waaw bu ko bu muy yegsi rek ku jén kii waa jabaram bi daal di jël paaka rek daal di xotti saag yi waaw jël farine yi daal di koy tasaare si jaww ji jël ndox gi daal di koy tuur si suuf de nee na soldat di ñëw wax ko buur bi buur bi nee jabar ji yow de dag ñoo bëgg a sànq daal di bojj jaasem di nga ma wax léegi lu tax nga def lii wala ma ray la fii léegi léegi waa jabar ji ne ko soo waaw mu ne ko na nga xam ne suñu sëy fii lay yem waaye dinaa la wax lu tax ma def lii de mu ne gis nga lekk beeg naan bi bu la sa ministre bi jox mu ne buur bële moom moo neexal waaw nangam si xaalis waaw sa ministre bi ngir mu posena la nga dee de su fekkee gëmoo ma denc naa tuuti lekk ak naan waaw woo ko rek ma jël lekk si lekk bi wala mu naan si naan gi waa buur gi woo ministre bi na ko lekkal wala nga naan waaye ministre bi bañ rek ma xam ne posan moo fa nekkoon rek mu daal di koy rey de mu nekk sama doom góor gi mu ne safara soo soosu nga gis ne moo moo ñëwoon ci pale ba mu ne sama benn mbokk si ci jinne yi waa dafa ñëwoon rek pour nàmpal suñu doom waa nga xam ne su demee ba fer rek mu delloo si ñu ko de waaye nag mujj mujj gi yàlla moom na ko waaw génn na àddina dee na de suñu doom boobu suñu doom bu jigéen gi tamit xaj boobu ñëwoon sama mbokk si ci jinne yi moo ñëwoon noonu ma jox ko ko de mu sifle rek nee na xaj bi indil ko xale bu jigéen gi mu ngi nuy gis nga mi ngi dund moom deewul waa ñoo ngi ko solal ay yëre yu rafet waa yëre yoo xam ne lépp urus la xaalis de waaw nee na mu won buur bi waaw yóbbu ko soldaaram mi fenn foo xam ne lekk ak naa ne nga fa de waa yebal ay jinne baayam waa ñu dem xeex ak buur bële daal di koy rey de se buur gi maa ngi dem buur bi def na lu nekk waaw waaye mu ne ko damay dem de waaw lu nekk def na ko buur bi jooy na xataraayu na mu ne ko damay dem mu ne ko waaye naa la bàyyil sama doom bu jigéen waaye soo gisee ma la koy bàyyil soo dee rek waaw moom moo la war a doon de buur bi d'accord de bu mu dee nag kooku may balxiis moom moo doon noon baayam de nekkoon foofu si réewu Yemen si réewu Sabe waaw dafay doxal de Suleymaan nag bind na leetaram daal di koy jox waa picc bi ñuy wax li Jubóoli Moussa Jubóoli naaw naag lettre ba yóbbu ko waa ba fu Balxis di fanaande Balxis balaa ngay yegg si néegam waa da ngay ubbi buntu tëj ubbi buntu tëj ubbi buntu tëj ba muy juróom-ñaari buntu waa nga soogaa di yegg si néegam waa am na fa lal bu rëy waa fa lay fanaan lal gi yépp urus ak xaalis lañ ko defaree de nee ñu defal ko fa palanteer tamit si néegam nga xam ne dafay tiim jant ba fu jant gi di fenkee su fenkee rek mu xam ne jant bi fenk na mu jaamu ko de ndax kooku may yàllam fa la ko sànnee leetaram waa Balxiis ba mu yeewoo waaw mu jël lettre bi wax ko ay nitam ne leen lii de dafa am lettre boo xam ne waaw dañ ma ko dañ ma ko jox léegi mu ngi tukkee si benn buur ba ñuy wax Suleymaan waaw nee na waaw mu jébbalu si moom de nañuy jébbalu si moom de te bu ñu rëy ñoom tamit ñu ne ko kooku noonu mu ne loo may conseillé ñu ne ko yow de sa guur moo gën a foor si guur yi waaw te sa sa sa sa xare waaw ñu nga am si soldaar waaw kenn mën leen àttan benn buur mën leen àttan kooku Souleymane boobu daal nañ ko song xamal ko boppam mu ne leen déedéet loolu mooy aada buur yi su ñu yeggee si dëkk rek loolu la ñuy def de dañuy ràppal dëkk bi léegi Souleymane boobu dama koy yebal ay àddiya su ma gisee ne jël na àddiya yi waa bëgg àddiya yi ma xam ne buur àddina la rek te buur àddina mën naa ko gañ a dee waaye su ma delloo àddiya gi waaw ma xam ne yonent yàlla la te si yàlla man mënu mun kenn mënu ko xeex de kenn mënu si moom dara de bi nga xam ne loolu la xew na nag mu jël waaw àdd yëm bi defar ko waaw jël góor yi solal leen yëre jigéen waaw jël jigéen yi solal leen yëre góor jigéen yi mu jox leen waaw ay ay gànnaay góor yi mu jox leen ay lay yoo xam ne ay urus ak xaalis dafa nekk ay sëmb yi nga xam ne sëmb urus yoo xam ne kenn mën na leen bënn waaw ak ay sëmb urus yoo xam ne bënn nañ leen waaye kenn nasul leen te kenn mën na leen nas de mu ne fekkee mën na bënn sama sëmba yii sama urus yii waa te nasal ma samay samay sëmba yële waa ma xam ne yeneen si yàlla la de waaw ñoom bu ñuy dem rek waa di ñëw waaw am benn jinne joo xam ne day na lépp mu yëgal ko Souleymane Souleymane ne nañ ma defal waaw ay garab yi nga xam ne waa lépp pom la waaye pom pom yoo xam ne waa ay pomu urus ay doon de waaw ngeen rëbbal ma ay rab daal leen bàyyi foofu de waaw addiya balxis gi ba mu yegsee ba ñu gisee loolu ñu foog ne waaw ay ay pom la rek ñoom ñu bugg ko romb am kenn ku xiifoon si ñoom daal di witt rek gis na ne pom yi pomu urus la de mu wax ko ñoom mu wax ko balxis de waaw bi nga xamee ne loolu xew na nag bu ñu ñëwee nag waaw ba si Souleymane nag ba yegsi waaw Souleymane ne waaw ñu ne ko sama urus yi waaw kan est-ce que mën nga ko bënn Souleymane ne ana max max ne ko maa ngi nii mu ne bënnal max daa di dugg rek daal di bënn sama urus yooyu waaw nee na lan la lan la xamee nii ñii góor la ñii jigéen lañu dafa leen wax leen wax wax ne nañu sëlmu gis nga góor suy sëlmu waaw benn loxoom rek lay sëlmu waaye jigéen suy sëlmu waaw foog beneen loxo gi waaw am si am si yoon de si la xamee ni ki ñu ñooy góor yi ñi mooy jigéen ñi mun a taxawal leen nii de waaw si leen wax ne li ngeen ma indil si alal ak si àddiya man aw ma si soxla ndax yàlla may na ma loo xam ne waaw man aw ma si benn soxla mu ne delloo na delluwaat leen de mu ne maa ngi ñëw ak sama benn xare boo xam ne su ma fa ñëwee rek di ngeen xam ne waaw yàlla rek moom mooy dëgg de bu loolu amee nag balxiis bu mu yëgee Suleymaan lu mu def ak moom nee na mu daal di tëj paleem waaw ànd ak ay nitam nee ñu dem ànd nag fukki fukki junne buur yoo xam ne buur bu nekk ak junne nit a topp si ginnaawam de waa pour dem seeti yonent yàlla Souleymane bun Daawuda de bu ñuy ñëw nag Souleymane mi ngi wax ne ànd kan moo may indil waa sii si balxis ba waa si benn léegi léegi nii waa mooy siisam ba de am benn jinne ji nga xam ne ifrit la ne ko man de mun naa la indil su balxis bi waa balaa ngay jóg sa place gi ndax Souleymane su xëyee waa dafay toog si siisam ba waa di àtte di àtte ba midi si lay wàcc waa su goonee mu gontadde mu ne ko balaa ngay wàcc si midi bi waaw mun naa la indil su balxis bi mu ne loolu dafa guddu léegi laa ko soxla de waaw si la asif bun barqiya ki nga xam ne yàlla xamal na ko xam-xam si téere yi ne ko man mun naa la ko indil waa balaa ngay xef sa bët yi Souleymane daal di xef bëtam yi rek waa seen siis bi si kanamam mu sant boromam waa si lu ko yàlla may loolu si la wax ne siis bi waa yokkul leen si tegen wàññi si de waa ñu daal di raat siis bi de ndax Suleymaan bu mu bëggee bu Balxiis bëggee ñëw si moom waa jinne yi dañoo tiit dañoo ragal ndax ragal nañu Suleymaan takk Balxiis ñu am doom rek doom bi da leen continuer di leen yilif waa ba ilaa aaxiri waaw ñu yàq yàq xelu Suleymaan ne ko xam nga Balqis moom waaw dof la amul benn xel te tànk yi du tànk nit tànk mbaam la waa te waaw te tànk yi tamit dafa sax ay karawu mbaam de waa di wax wax wax wax wax wax Suleymaan nag bëgg xam li ñuy wax est-ce que dëgg la bu Balqis dikkee si moom mu ñëw ne ko baa xàmmee nga siis bi nee na mu ne ko dafa mel ni sama siis bi la de si la xamee ne kii ku am xel la de kon lu ko jinne yi waxtu dëgg de waaye nag mu desoon tànk yi est-ce que tànk yi tànk mbaam la wala tànku nit la nee na mu si wax jinne yi nga sal leen ma sama pale waa ngeen sol si ndox ba mu fees dell te ngeen nappal ma ay jën dugal ma ko foofu si biir waa ba jën yi nekk si biir waaw ngeen jël si kaw nag daal di koy daale def ko weer nga xam ne képp ku koy gis rek dafay mel ni ndox mooy mel meli foofu dafay mel ni géej la de nee na jinne yi daal di def loolu de liggéey liggéey bu rafet bu Balxiis ñëwee ñu ne ko yéegal Suleymaan a ngi si kaw ba muy yéeg ba yegg ba war a yegg si Suleymaan tegoon si kaw ndox lay si kaw ndox la war a kii de si la yëkkatee nag ay ay yéreem waaw tànkam yi feeñ de Suleymaan gis tànk yi gis ne tànk nit la kon jinne yi duñ koy wax dañuy dañuy fen de waxuñu dëgg waaye tànk yi waaw am na karaw loolu dëgg la mu gi Suleymaan da ko wotal ba mu set waaw defaral ko xodee toppatool ko xodee Suleymaan ne ko mën ngaa wàccee waaw sa yére ndax nii lañ ko liggéeyee de waaw Balqis daa di ñëw waaw daldi di ne tooñ naa sama bopp si lu ma doon jaamu waaw lu dul yàlla de te maa ngi jébbalu ànd ak Suleymaan waaw ñeel suñu borom bi nga xam ne mooy borom bindee fi de waaw daa di tudde nangul Suleymaan Suleymaan nag noonu la nootee waaw réewu sabay waaw ax Balqis Balqis nekk soxnaam weer ba weer waa dina dem ba si réew sabay am fa ñetti fande de noonu la ko doon def de waaw Suleymaan nag bu mu demee nag waaw ba diiram war a mat nag alayhi salaatu wasalaam mu xam ne waaw boobu la sante woon jinne yi ñu defaral ko waaw benn jàkkam de waaw foofu sa baytul maxdis waaw ñu di koy liggéeyal mu xam ne liggéey gi du sotti te Suleymaan bun Daawuda bépp garab bi nga xam ne sax na si bërëb dafay ñëw ba si moom ne ko man maay garabu sàngam waa sax naa si bërëb sàngam lii ak lii mooy sama jëriñ su ko defee Suleymaan wax waa na ñu bind ko de ñu bind waaw xam-xam yooyu yëpp mu dajale ko daal di koy bind de waa moom yonent si yàlla Suleymaan ba benn garab ñëw ne ko waa mu ne ko lan mooy sa jëriñ mu ne ko man waa garab laa joo xam ne waaw pour ma pour pour ma dee problème la de waa jafe na waa mu ne ko mën naa fi nekk daal waa ba keroogee waaw sa jàkk ji waa ñu koy rappal man mun naa fi nekk de Souleymane ne ko sama pale gi tànk maa ngi fi kenn du ko rappal waa waaye si la xamee tamit si xam-xam kon moom waa du fekkee kan la jàkk ji di pare de si la jëlee si la ñëwee jël bant garab googu daal di si ett bantam nga de waaw moom la téye woon gis nga Souleymane su doon julli dafay sëgg suy sëgg benn jinne ñemewu ko benn nit ñemewu ko di ranger de waaw fa la toogee nag si siisam nga nag waa téye etam ba ñëpp tegoon ni Souleymane na ngi dund de fekk ne waaw Souleymane dee na dee na yàgg na ba def at yoo xam ne lan moo ko xamal lan moo doon xamal ne dee na max moom moo doon lekk et bi di lekk et bi ba et bi jeex rek Souleymane daal ñu xam ne Souleymane dee na de jinne yi waaw boobu ñoo ngi doon continuer di liggéey fekk jinne yi dañ doon nax nit ñi di leen xamal ne ñoom dañoo dañuy xam liy ñëw si kanam waaye su fekkoon dañ doon xam xëy bu xam liy ñëw si kanam kon daañu xam ne Souleymane dee na yàgg na de waaye nag dara xamul leen ko lu may max max de moo leen xamal ne Souleymane dee na kon nga xam ne jinne yi waaw seen ay tappale lañu ñu yore kenn xamul xëy bu lu may suñu borom waaw loolu mooy xisa yonent yàlla Suleymaan gis nga dëkku sabay boobu boobu nekk si yemen yàlla tamit mayoon na leen mooy dëkku balxis ga waaw seen dee joor toola fa nekk seen càmmoñ tool toola fa nekk waaw ñoo ngi nekkoon foo xam ne waaw ay montagne ñoo leen ñoo leen sëkkoon waaw ndox nag dafay bala di wàcc di roose nag seen ñaari yàlla def fa ay yoon yoo xam ñooy roose seen ñaari seen ñaari tool yi de ñu amoon meññeef amoon alal bu baax waaw dëkk la joo xam ne ju teey la soo fa nekkee jaan du la mat jiin du la mat yoo du la mat fel du la mat dara du la mat waaw xéwal rek day am te seen dëkk yi waaw dëkk sabay soo fa nekkee soo bëggee tukki dem si beneen dëkk waaw dëkk yëpp a jokkaloo de amul dangay dox di romb ay àll lépp a jokkaloo de waaw nit ñi dañ doon dugg dëkk duggaat dëkk duggaat dëkk waaw moo tax ñoo ngi nekkoon si sécurité de nekkoon si jàmm ñu dem ba si biir nag ñu commencé beew commencé gis seen bopp dinaan yow yàlla li nga jëlee suñu dëkk dëkk bi waaw daal di koy takkaleeg yeneen dëkk yi dañoo bëgg ko soranteel yeneen dëkk yi comme ça ñu xam ñan ñoo ñàkk ñan ñoo am de commencé beew xaat yàlla nag waaw daal di yëngal nag doj yi nga xam ne ñoo leen tiim waaw yëngal leen nee na mu mu doon volcan de waaw safara wàcc fa de ñoom ñëpp ñu daw ñaa daw. kisra ñaa daw faris ñaa daw busra ñaa daw iraq ñaa daw saam ñii tamit waa Qusay ibn Kalab waa moom yaayam boo teekoo waa sa yemen sa sabee daw ak moom ba sa màkk de pencum bi nga xam ne dañoo tasaaroo te dootuñu dajee waa mukk moom la ñuy wax dañoo tasaaroo ni pencum sabee waaw ñoom ñëpp mooy fukki penc ak ñaari ñoom ñoo ngi bàyyeekoo si sa bay waaw si si si réewu bal xis googu de loolu mooy sa yonent si yàlla Suleymaan bun Daawuda bëri nag ay jàngale yi nga xam ne ñoom ñoo ngi si biir de waaw Suleymaan daaw Daawuda yàlla may na ko loolu yëpp waaw yàlla nag moom mun a maye waaw moo moom rek moom mooy buur de waaw waaye loolu yëpp bu mu ko mayee tamit benn baat rek la delloo yàlla da ko ne alhamdulilah sant naa la yow sama borom kon nag ñun tamit ñoo ngi sant yàlla moom ñu dimbale ñu waa ba ñu terminer histoire gi seen bokk bi ñuy wax Moulay Idris moo doon ànd ak yéen di leen koy taarixal Moulay Idris ibnu Insa ruuxula Baye Cheikh Mahmoud Insa ruuxula allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatihi lima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 لا إله